yéen xam ngeen système parti ko pouvoir lan la ñuy def dañuy sàcc xaalis xaalisu réew mi xaalis bi nga xamee ne que ñun ñëpp ñoo ci bokk yam ñu jël ko xiifal leen ba ngeen xiif ñu ñëw ak xaalis boobu jox leen ko pour ngeen ay t-shirt nekk ci ay seen ay meeting dama ni buñ leen joxe xaalis boobu na ngeen ko